Mama. dama damaa waaru man instant bi jaaxle naa ci sama feebaru doom ndey feebar boo xamante ni doo dégg doo gis doo lekk doo naan yow daal doo def dara puissance ki yaa ngi ko jox mu lekk est daal damaa jaaxle. Ah, puissance man de ci yaramam bu tàng bii. Aliou Diouf sax laa ko tegoon. ndax ni yoy dañu bari te mom du dugg ci musique bi mais dañu ñew legi nga ne ñu docteur bi neena du deg du gis mënul sax wax. du def dara doy wat trop. te fim mu toll médecin bi neena li ci gën moy na teud ben place bañ a def benn bruit. Mhm. lolu jaxal na ma quoi. de moo tax suñu borom ni def lu bax dal mo am solo dundu ak la bind ak feebar ak wér waye nak bo feebaree ba tollu ci yenn situation yi. ah suñu borom am na lum ci wax moo tax ñu naan lépp nañ delloo ci seen xel ci yàlla suñu borom ndax nit ñee ngi fi jàpp di jamante ay paaka di liggéey seen moroomu nit di jëwante lu ne ñu def ko ci biir dëkk bi léegi sax di dagg bopp xale di sacrifice te loolu yëpp maanaam di balaa ngaa dee di nga sukuraat di ko gis moo tax nag boo feebaree ah yàlla suñu borom de am na lu mu wax moom. li wax yépp mënu ma koo wax de bu ma ko waxee de fii laay fanaan ah gis nga yow benn jour sax kajjaa musóor naa baxal diwlin ba mu tàng ba diwlin ba di bax mu naroon la koo sotti waaye maa fa nekk di jooy di jooy di jooy kabiyon naal ñaari kii jooy naa ko fa mu daldi di arrêté diwlin bi ma delloosi ko si yàlla suñ boroom te mbirum yàlla foo ko tuddee fu nekk nit lu mu jàppoon da koy bàyyi. yow it sa jëkkër ji tóor na fi femme boo xam ne nii moo ëpp néeg bii naroon koo teg sa kaw ma topp ca di wax topp ca di wax nekkoon ko nag jabar ju baax soo ko amee danga koy téye nga bàyyi jigéen ñu bon ñi nga xamante ne xeexuñu àttewuñu koy xeex nga jàpp sa jabar ji loo am mu ngi lay suturaal kenn xamul li nga am ak li nga ñàkk waye tamit nga bal ma de waye mom de amon na dom dom dom bora da la don footballé bora amon ben fam bu mu fa joton trompé gone ga nak judd gone geeg sa jëkkeur ben la ah man dal en tout cas moo ki dal ben lañ motax juba am solo daa am sol te nag ameloon na ma cinquante mille. cinquante mille. waaw. ba di ko lebal. dama koo liggéey. maman cinquante mille yi bi nga ko koy jox yaakaar fa ne woon. ameloon na ma cinquante mille kenn yëgu ko te nit nag kii dama yaakaar ne ma ngi si diggante dee ak dund balaa moo dem te àkk dafa garaaw te man baalu ma ko mu jox ma daal balaa moo dem bàyyeew nga fayal ko ko. gis nga àdduna àdduna daa jafee xam. waaye tamit naqaree nekk ndax àdduna lii moo fi nekk dund ak dee moo tax lépp soo fi nekkee daa war di rafet ngir ëllëg moo tax soo fi jógee xam nga ne ku déggul waxul boo reetaanee sax yàlla la neex ah xanaa di la wax nga te nekk jàmm rek suñ boroom de moo mën lii keneen mënu ko. maman nit bu feebaree danga koy suturaal naka ngay ñëwee seet si ku feebar ah bëgg ay mbóotamam lu nekk nga sulli ko maman pour lan. Mm-hmm. ah burul dara sax xool ci jabaram ji sama àkk àkk lañu wax àkk lañu balaa moo dem du yóbbaale leen ma wax la ko rek moo gën a rafet baax na cinquante mille la la yore ah. ne nga yow ak moom ak yàllaa ko fekk mhm. dinaa la fay cinquante mille yi nga dese yow ak yàlla d'accord ah. te nga dimbali ñoo waxi dee ji Ah. xam naa ni de su doon déggit feebar bi nii da nga koy doxale waaye heureusement ñun dañ ko defoon juste rek pour tester la mm-hmm. maman man du ma sol noonu man sol locataire laa ba pare mu doon locataire suñ diggante nag yàgg lool waa mbedd bi dañoo dem ba yaakaar ni sax maak sa grand bi ñoo bokk ndey ak baay tellement ni diggante bi rafete wante yow damaa xamul lan laa la def te tey jii nii bëgg naa xam. lan lan moo dox sama diggante yow rek ba nga war ma di faye yenn yi daal di ma fenal di ma sosal nee nga nag yore naa la fukki junni fukki junni yooyu noonu kañ laa la ko yore d'accord léegi nga delluwaat ne yoreel naa la maanaam am naa doom mbooroo bëgg naa loolu lépp mu leer parce que sama soxna tamit du toog ngay wax loo xamante ni sama der bi musu koo yëg te bëgg naa bu fekkee lu dëgg la bu fekkee dëgg la nga wax ko naka la demee A ba Z. billaay du ko wax fii ba suba du ko wax xanaa nag bisu tey bii nag. dina la yee ci lu bari ci sa àdduna lii nag doguma la li ma ko doon wax rek man mosuma koo gëm nit dina toll ci ay diggante yu méttee métti nit ñi duñ ko yërëm walbatiku di yàq deram di ko jëw di ko sosal te ñu ko doon wax rek moo koy weddi waaye tey jii nii tax gëm ko waxaat nañ ma fi léegi nit ñi sax léegi dañuy dem ci dëj di fen di fen ba fenal ki de sosal ko yooyu ma yaakaaroon nii rek ay wax la rek waaye tax nga bëggam lépp tey mama saaga ki de boy bisu tayam bi sa bisu tay bi bu la soppiwul ci sa aduna xanaa nag boy fen nag ba ñu la pièce kii tëdd nga dégg ne day waaj dee rek lekkatul naanatul nga bëgg a profité ci moom di laaj ay cinquante mille di ko fenal ne dafa am doom di ko di eh, di wax na jabaram daf ko doon waaj a wutal wujju xanaa loolu yëpp nag boo koy wax nag ba mu jug toog dégg la ah nga war a mën a changer ci sa àdduna que ni nag lépp loo doon waxati nag di nga ko bàyyi nag te jublu ci nag ñu naan maman nitu dëgg la te bàyyi maman nitu waxkatu lu dul dëgg la xanaa bisu tey bi dina la yee maman. day dee wala. dama leen doon jox salaamaaleykum.